ñoo wax ne dañuy def lancement coalition yéen kaay gi de la turbine xëy dañu xibaar naan ñu PDS muy Mamadou Diop Decroix di Pape Diop bokk gis-gis ñoom nag nee ñu déet Ousmane Sonko ak Khalifa Sall yéen kaay gi de la Quotidien nee na coalition bi nga xam ne gars yi ñoo ngi wax naan coalition bu boo xam ne dana mën a jàmmarloo ak bokk yaakaar coalition boobee nag mën nañoo jàpp dafa nag juddu dee moor ne coalition dafa judd rek dee yéen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 candidat yi bëri nañu bu Idrissa Seck la bokk moom nag nee na commune bu Marsassoum la bëgg ndax nag dafa bëgg aw yorin wu bees lépp nag ak leeraange ndax nag commune bii nga xam ne mooy a soppeeko yéene kaay gi nee na moom Moustapha Dramé ginnaaw 40 yoo xam ne na ko ca dafa daal ñëw nag ci ab ngir nag teg fa nag nouvelle alternative pour Marsassoum yéene kaay gi nee yorin wu bees yorin woo ne lépp nag dafay ànd ak leeraange loolee nag la bëgg a prôné kaay gi di Walf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 yi doon football maanaam gagné nañ waaye nag yooyu ñu kenn ndax nag li nga xam ne mooy système de jeu bi maanaam jeu bi ay failles yu bare bari moo ci am te jamono ji nag journal bi du l'observateur nee na boo ñu jubbanti ko ndax ñu bare bari ñoo ngi laaj naan équipe nationale bu Sénégal bii nag maanaam jaaxal nañu nag football bii nga xamante ne kenn xamul lan lay niroo ki nga xam ne mooy Kalidou Koulibaly moom nag nee na daal football bi nag wax dëgg yàlla bu ñu waxantee dëgg football bi na yéene kaay gi na nag ne ñoo nekk ca Afrobasket ba ñoom daal niki démb wane nañ seen bopp seen diggante ak Angola